ñu fekk la waaw. waaw li nga wax dëgg la waaye dañuy jàppale tamit da see baax ñun ñëpp benn lan rek waaw. ku yorloo ñu mën a dimbalee nga dimbale ñu te yàlla tax ak yeneen am naa certificat d'études am naa brevet d'études def naa la moitié de l'Afrique euh, def naa Mali Guinée Côte d'Ivoire Ghana Togo Cameroun Nigéria. bu lan musuma essayé gaal parce que dama doylu man man tey tali gu njëkk laa naroon dem te avant dem dama tàggu samay parents. boobu sama yaay ngi dund en san treize soixante douze léegi man xale yi yi ñuy def nii sax teguñu ko penn di dugg ci gaal tàggoo say waajur loolu du yoon. est-ce que jàpp nga ne bu tàggoo waajur waajur duñ leen bàyyi. buñ tàggoo waajur yi waajur duñ leen bàyyi mais daal tollooguñu fu ñuy ñàkkee ba yam. bi na jóg ci xale yi parce que njur mi bari na ci kër yi doom yi bari nañ ci kër yi. xale yi màgg nan jigéen ñi bari nan jur mee bari ci kër yi amoo doole bëgg a yore ñaari jabar say jabar di jur rek di tek di jur di teg di jur di teg di dans dix ans ñu màgg bëgg a dara xoolal xale yu ndaw yi di jaay ndox mu sedd ñii koo ci xëcc woo teg moom may ko dix mille te dëgg moom waaw waaw fii looloo fi ama ah. dans tout Sénégal du Touba rek fii nii fépp dans le continent de du Sénégal Afrique gépp xaalis dafa yàq àdduna te boo ci gorewul rek danga nga sàcc yow miy góor jigéen ñaa ngi sàcc jigéen ñaa ngi cagatu góor ñaa ngi yor seen kaalis di la meeb yow ku jigéen ku ndaw ki boo ko ñaanee téeméer mu na la ñu dix mille ngi nii mu xam li nga woo doo jaamu yàlla amatul jaamu yàlla moom vraiment gisatuma ko ci nit ñi yërmande amatul fii fii nag mbàkk mbàkk yi rek fi am yërmande ndax bu ñu amoon yërmande diggée naa saka seen marché bii du tàkk asaka kenn génne woo ko ci dëkk bi ah, gisuma kenn coppi mu sa taxaw ne maa fi génne asaka wala ñu naan diw déedéet man maa ko wax man man maa ngi tudd mbay Mbuub yaa ngi dégg je suis je suis je suis né en cinquante six so âgé de sama xol dafa jeex ci Sénégal amatuma ci yaakaar merci beaucoup. man naa dee léegi rek sax mu ma gën a aw ma ci benn yaakaar franchement aw ma benn yaakaar ah, ah. fii ah. xool dong laa ci mën ndax boo waxee ñu rey la sama xol bii nag ma neexee tàllal ko mais tànk bii ma tàllalee ñu ne ma bank lu ma ci mën vraiment naa ko dund gi sax bu yowoo mu yem fi yow yow du dundal ba ci kanam mais li ma gis fii non malheureusement li ñu gëm sëñ Tuubaa moo ñu bàyyi ci dëkk bi mais bu doon beneen dëkk la ñu ngi reyante waaw ah, di di courage rek l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, que nul ne se connaît tant n'a pas souffert. Premièrement, il faut s'ouvrir, d'être un homme, être courageux, faire la prière, les cinq prières, croire en Dieu, que Dieu Dieu, un de ces quatre matins, Dieu, Dieu va te donner ce que, ce que nous méritons. xam nga man j'ai dara fii ma taxaw nii yore ma fukki dërëm. mais am nga soxla am doom. ma jabar soxlawu ma doom parce que express nan may jox aw di jours bés ak moroom moom moo ko joxe dépasse ma lu ma ko jox dépasse bu yàggee mu dem yoonam fekk ci man la liggéey laa amul moo tax lii yëpp booy yi dañoo xam ne bu ñu yàggee ñu mel ni mag ñi. ñun ñii c'est la ci nañ yaroo ci rythme bii nañ yaroo ba mënuñoo dem mënuñoo dëkk dañuy jaaxle daal vraiment mënuma wax lépp vraiment sant yàlla. bu fekkee ne fii nga toog jëriñ loo xam ci gone yi dem ci gaal gi. waaw waxal waxal boo waxee waxal waxal nga xam ci xale yi nga xam ñi ngi dem ci gaal gi man maay ŋàbb micro bi xale dem ci gaal gi. xale yi dem xam. Ah. maa du yoon du du du mm. dem ma ma ma ma gis si man dama mooy mm. dama déglu wax. Mm. ana wax bi fa mu dem ci gaal yu yomb da ngay maa dem dem ba nga dem taw maa dem da ngay bàyyi maa dem doog a dem mais man gisuma ne maa dem sax anama réew yaa man ngaa toog sa am li nga war a yaa mais xoolal xaar nga xaar si xol bi ba am ba sa yéene mu nga toog mais am yéene ci xol ba pare bëgg a dem te moo dem bëgg a dem force du yoon moo tax xaalis day day gaal gi yow yow yow fi nga nekk nii nii lan ndimbal man xaar du yenn yaa. Hmm? benn xaar ma ko yenn yaa benn xaar boo xam ne. dama xaar ma ko. xanaa man xaar boo xam ne dina ma ko. xanaa am naa ko de moom. mais benn xaar boo xam ne si dama métti amu ko. amoon naa mais léegi dama ko ñàkk. jamono moo tax ma ñàkk ko ba léegi tax ba tax ma métti lool lool. meruma ji ba léegi meruma ji. fan nga dëkk fii. maa ngi Tuubaa fii Marian. fii mooy su fi nga juddoo Marian kat faa juddoo faa yaroo. dama naa fi tànk di dox ak lépp dama ko ñàkkat waaye nag ba léegi jooy ma suñu borom ndax yàlla ma may. waxal lépp fii palalisme fii la la tane fii ngay fanaan. fii fooy fanaan fii wala fii nga toog fii ngay fanaan. Kawe te nga ma yàq loolu. waxal rek fii dama bëgg nga wax lépp fii. na fanaan fii. lu ma ko def am naa kër xam na moom baax ba léegi bañu ma ko de. tolof tolof. ba léegi bañu ma ko. tolof tolof nga nekk xam nga tolof tolof yi nga nekk ñu war laa dimbale ndax nit ay tànk mooy nit macha allah yàlla suñu borom teg la planisé tegale ko bi ci dëkk bi ñaata ak mu jooy góorgóorlu nga wax. mool kii góor yàlla la woon fii la ne woon di dóor waar jamono ju mettee ko jàpp mhm. yaa ngi dégg seex la tudd ñu ñëpp suñu gaañ la man da daan ñëw sama gaale man daf ma daan fréquenté doon gaañ bu mën a sañse ñu tuddee ko seex rasta mais ma maman bii may wax a yow nii fii lay fanaan ndax léeg-léeg tànkam yi ngay gis nii neexul neex boo xam ne dina mën a dox pour dem këram mhm. ak yeneen gaa yoo xam ne nii fekkoo leen leen fi mais fii la ñuy fréquenté lan moo leen ko teg mhm. ñàkk lu ñu liggéeyee gars yi bu ñu amoon lu ñu def du ñu toog fii nii di di def dara maanaam lu dul dem liggéey am dara yóbbu seen biir kër mais amuñu ko fii da ngay xëy fa nga war a liggéeyee maanaam ñu lay fay sax boo liggéeyoon ba pare duñu la fay dañu la naan tey suba ëllëg ba nga découragé wu toog bu subaa doo sawar a xëy loolu rek la loolu moo métti Sénégal bi fii ñi yor doole instant ñooy gën a am ñi néew doole di gën a dellu ginnaaw parce que dañ lay liggéey loolu duñ la fa mais fii day gis nii nii day fees dell c'est-à-dire heure bi ngeen ñëw nii fekkoo leen fi kenn gars yi ñu ngi uti lu ñu am ci nuñ ko mën a amee ah. Hmm. waaw nuñ ko mën a amee dañ koy am parce que amuñu ñu def kon gars yooyu noonu tey buñ gisoon gaal guy dem dañ cey yéeg dem ah parce que liñ nekk mook dee rek ñooy am waaw ba ci man mii di wax ak yéen heure bu ma amoon gaal muy dem tey ngoon takk naa sama saak pare naa damay dem Espagne parce que dee dee la rek dund gu metti lu metti la dee daa metti rek ñooy am kon. waaw kon nañ dimbali nit ñi bu fekkee ne maanaam ki nga xam ne moom lañ dénk réew mi muy Macky askan wi ñor nañ ko rawatina Touba yi nga xam ne nii maanaam tey ñu bari moom la ñuy àndal di ko woteel nañu dimbali ngir yàlla mu dimbali sones bi ñu liggéey sones bi sonn nañ tey jii boo jéggi woon tali bi nii bàyyi peel yaa nga fa toog am na ñoo xam ne nii yàlla mi ma tiim laay wax ne xoolal dañuy xëy ba wàcc dañuy toog fee ba wàcc jot ñu yor seeni loxo di yalwaan ci place lu ñu yóbbu dépense parce que nekkul tous les jours danga nga war a am liggéey liggéey hmm. léeg danga da ba heure bi jeex nga xam ne xëy passé na nga dem ñibbi kon nañu dimbali nit ñi te bàyyi politique bu métti beeg wax ju métti ji sans jëf buñ ko defoon ba léegi affaire yi jeex na Sénégal ñi ngi dégg or gaz lu ne ñi ngi koy dégg ak pétrole bi ah lan moo tax SONES bi mënuñu liggéey ah milliards yi milliards yi milliards yi ci ay tele ay rajo mais ba kañ mais nañu dimbali nit ñi soxna si daal man loolu rek laa amoon ci lu may wax. barki saal na dimbali askan wi sonn nañ sonn nañ. ok espace bi ñu leen di won fi la jàmbaar yi bu gudd jotee fii la nii fanaan ndax amuñu fu ñu nekk amuñu lu ñu dundee moo waral ñu fiy fanaan. te nag ñi ngi wax naan ndaw yi am nañ liggéey ñii naan nangu ñëw liggéey mais est-ce que ndimbal boobu war ci ci état mi ngi koy jëmale ci jeunesse am rawatina dëkk bu sell bii di tubaa ndax fu ne la nit di jógee di fi dëkk si li waral nit ñi fi def ci dëkk si mooy dund bi nga xam ne yomb na dund bi nga xam ne xéewal si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo woon nit ñi ñu fiy ñëw léegi nag euh, état Sénégal dimbale ndaw Touba gis nga fii ñuy fanaan kenn ku sañoon doo fi fanaan. daam la tudd bi mu fiy ñëw maanaam xañ na ñi ko xàmmee woon sax xàmmeetuñu ko parce que bi mu fiy ñëw bi mu fiy door di ñëw amul woon sax image bu mel ne bii mu amoon nii mais yàgg fi ak di nekk bu añ jotee du añ reer bu jotee du reer amul fa mu fanaan fii lay fanaan photo bii nga gis nii mu toog nii ci lay fanaan les jours. bu lekkee bëccëg gi moo ci ëpp sance parce que borom place yi ñun ñi ngi fiy liggéey bu ñu amee añ mu añ bu amul añ du lekk loolu rek la kon nañu dimbali en même temps ñu mel nii jëlee leen ci ruq yi dugal leen ci place yoo xam ne dinañ may mën a xëy di wàcc di mën a sol yére yu rafet di ànd ak nit ñi. parce que ñoom dem nañ ba xeeb seen bopp ne mënatuñoo ànd ak population bi loolu moo waral ñu nekk ci ruq bi kon nañ dimbali gaa yi nañ dimbali gaa yi bu baax waay xoolal kii nii yaram daw na am na ñoo xam ne boo leen fekkoon sax yow da ngay jooy sa bopp. te pourtant billaahi li ma lay wax duy caaxaan ñi ñëpp ay nit déggoo li ma la wax fii la ñu nekkoon ñoom yor seen i xel di set gaan bee ñu jóge léegi ku ko gënoon a dàqa sañse wallahi al asim mais ñoom ñëpp fii lañ fii la leen lii dale yóbbu ci kaso bi ñëw jëlee fii ramance des fois nga gis ci ñoom naka su dul noonu xam nga yóbbu ci kaso bi ba mujj yàgg yàqu nañ ñu ngi nii mais Sénégal bu fekkee ne noon lañ nar a jàppee jeunes yi xam nga réew mi ëllëg fan la jëm ah jeunes yi ëllëg ñoo war a yor réew mi ñoo war a doxal réew mi lépp ci ñoom lañ ko yaakaar ëllëg kon nañ leen dimbali te bañ a topp di leen torturer di tëj ay kasoog jàppal bàyyi loolu du solution bi nañu trouver beneen solution bu bokkul ak bii waaw nañ dugg ci roq yi jox ko micro bi mu wax man naa wax. waaw waaw li nga wax dëgg la waaye dañuy jàppale tamit da see baax ñun ñëpp benn lan rek waaw. ku yor loo ñu mën a dimbalee nga dimbale ñu te yàlla tax ak yeneen tamit. non man maa ngi dëkk fii nii fii ma toog Madiana. Touba quartier Madiana waaw. waaw. lan moo fii kon dem seen fii fi liggéey si lu am solo ma fi indi bu ma amee liggéey liggéey mais fan yi tawat ab lu mel ni tawat jàpp na ma fi moo tax gis nga nii fan yi dama dama tawat. waa ji léeg kii nii sa ginnaaw nii ngay gis léeg-léeg ma liggéeyal ko xoosal ko bopp lali papiyeel ko bu amee lu mu yëkkati mun maa jox jox ma ku baax la nag. waaw waaw sama papa nelaw na mais sama yaay moom mii ngi fi ak samay rak non samay mag ñi ngi dakaar Dakar ñi ay paan la ñuy jaay ñi ay yére xam nga waaw. non xamuñu ko nag ah amul ko mën a yóbbante ku mën a dem seen kër ku fa xam man ngay xanaa lenn meer bi doxandu fi rek ma daan na ko. aywa nan dem kër ga nga yóbbaale ma ba ma toog fa ba kanam ba fan yoo ma tane su ma tanee ñëwaat nag liggéey di waxtaan a def yow. nii nii nii non amaguma loo mën a def nii nii nii nii. bu ma jàngoon. waaw waaw jàngoon naa tëgg moom tëgg. tëgg waaw. tëgg wurus wala tëgg ay. tëgg wurus waaw. lu ko mën a changé lu dul saa yu xëyee di gis takk der dina tax dina wàññi lu bëree bare bare bëri ci Madiyana gi afrobanditisme bi yëpp maam ñàkk gis ku leen yar la rek xam nga fii li fi nekk bi waa fii moom lépp a ngi fi loola waaye mën a wax moom lépp a ngi fi des fois nga dugg fi gis leen des fois nga dugg fi du leen gis mais lu ne ngi fi moom ñun góor yàlla yi fi nekk nag xaj na xamuñu ko mais xaj na jigéen ñu néew doole ñu moom xam nañ li ci Madiyana li fi nekk moom ñëpp xam nañ dañu yàlla dimbali ñu am fi poste bu baax rek loolu yi ñaan daal waaw baax na wasalaam muy kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nañ ci wax état bi nga xam ne nii moo yilif Sénégal moom it na ci wax jël ci ay motuwaayam en tout cas daal soxla nañ dimbal ci suñu Madiyana gi parce que ñu nit moom rek la am tey tey jii xale yu ndaw yi nga gis tey buñ màggee woon tey ci milieu yu mel nii mën nañ fee jël jikko joo xam ne nii buñ ko doxee ëllëg réew mi fan la jëm kon nañu dimbali lillahi wa rasulihi nañ dimbali askan wi dimbali jeunesse bi Sénégal mën a jëm ca kanam bu ñu bàyyeekoo nag yem ci waxi kese ka tuddi ay milliards te kenn du ko gis réew mi surux rek ñun ñëpp ñu bokk ci yam yaa ma gën a xam Sénégal suñu gaal la ñun kon ñëpp la concerné muy yow mi nga xam ne yaay tàllal micro beeg yéen ñi jàllale message bi pour ñi ko war a dégg dégg ko ak ña koy dégg ñoom ñëpp ci Sénégal lañ bokk kon dañ dimbali gars yi nga xam ne nii ñoom li nga leen di dimbalee nekk loo xam ne sa alal joo jël ci sa poos alalu réew mi lañu lañ soxla ñu jël ko def ko ci waa réew mi ñu jàllale réew mi kanam wa wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw sant nañ leen nag yéen waa waar wi yi parce que li ngeen def nii am na solo trop parce que day baax léeg-léeg nga bàyyi sa yitte dugg ci ruq yu mel nii nemeeku la fa nekk parce que kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi rawatina yi ŋànk dëkk bi di Touba am na yoo xam ne xamuñu ko parce que demuñu fa dañoo mën a seetaante la ñu won leen wala ñu diglu rajo dégg rek kon lii ñoom ñi nga xam ne nii dégg nañu ko nañ ci def li ci war incha allah bu ko defee yàlla def jàmm jàmm sax fi jeunes yi liggéey Sénégal jëm ca kanam. jërëjëf soxna si.